ci taggam yi nga xam ne tagg na muhammadam saahir tagg na muhammadam baatin ndaxamit baatin i baatin muhammadam saahir mooy kan mooy kala Seex Tijaan de waxal ci jawharatul kamal naan la allahumma salli wa sallim ala hayni rahmati rabbaniya kooku day mooy xare na ñaar fukki xare juróom-ñaar juróom-ñeenti xare yi mu songo ci ñu songo ko kooku mooy rahmati rabbaniya moom madam baatin mooy kan mooy kala Seex Tijaan naan allahumma salli wa sallim ala haynil haqqi lati tatajalla minha hurutul haqaaiq ma ne kooku day mooy muhammadan baatin mooy muhammad ma nga ne moo gonge ko hadratul qudsi taxaw di haqiqatul muhammadiya muhammadan baatini baatin mooy kan mooy Muhammad ma nga xam ne mu nga taxañu ci biir saatul haliya moom la Seex Tijaan naan allahumma salli wa sallim ala talhatil haqi bil haqi kan tilasam ifalatika minka ilayka ihatatino ma ne kooku de mooy Muhammad ma nga xam ne mooy butoonul butoon ma ne ngeen déglu bu baax gannaaw am nañ jëlee nañ ci ndigalal suñ sëriñ ne nañ gàmmo te ñun jàngal nañ ñu yoonu gàmmo ba suñ ko dégloo danañ ci xam luñ jëriñ kon nag nañ ko déglu ma ne muhammadam baatini baatin mooy muhammad ma nga xam ne mooy kan laa sam kan su laa sam soo ko xamut te nga gerte bii nga téye ci sa loxo wallaahi mooy gën a lañ ñu de wallaahi mooy naaf ba de wallaahi moom lañ bàcc muy gerte ga de kooku mooy kan su laa sam ma ne kan laa sam soo ko xamut mooy gub bi mooy pepp pepp dugub bi nga téye léegi mooy gub bi ñuy bojj kooku mooy kan si mu ne kay fa mat hii naka may tagee li man ñeexal ka nga xam ne xadi musaraaho gosi neegab dengeerem ba jibrilu jibril la alaminu kade kuñ xoolu tola layaali yàgga guddi yi mu ne naka lay tagee muhammad mi nga xam ne dafa foor ba jibril mooy bëkk néegam ma ne dafa foor ba jibril mooy bëkk néegam jàngatal kuy jibril boog jibril aadama gis na ko fukki yoon ak ñaar mane ne ma ne nooyin na ko ñeen fukki yoon ak ñaar ibrahim gis na ko juróom fukki yoon yonent yàlla Muusa gis na ko ñeenti téeméeri yoon naka noonu yonent yàlla Iisaa gis na ko fukk Idris gis ko ñeenti yoon ma ne kooku mooy yonent yàlla Muhammad yonent yàlla Muhammad moom gis na Jibril ñaar fukki junni ak juróom benn junni ci yoon ma ne kooku mooy Jibril moo tax ba Alaaji Malik ne ko yaa li aadama nuunin summa taafa li noohin summa muuse li ibrahima hadduba mi ma ne alaaji ibrahima ngoog de moom dafay jàngale téeram bi ci téere yi bi loolu amee nag ma ne mooy kan jàngatal jibril jibril mu ne xalaxani rabbi fa makastu hasrata alaafi sannatin ولم هرج اسمي فناداني يا ربي جبريل فعرفت أن اسمي جبريل فقال قد اسمي فقدسته حسرة آلاف سنة مجدني يا جبريل فمجدته حسرة آلاف سنة آمني فأحمدته حسرة آلاف سنة صل على حبيبي تاها وياسين فصليتها عليه حسرة آلاف سنة فرأيت سطرا مكتوبا في ناحية الحرس يمينا وشمالا لا إله إلا الله محمد رسول الله ma ne jibril mu ne damaa toog ci péew yàlla ba xaw ma nu ma tudd xawma ma may kan xaw lu may def yàlla ne ma eh jibril ma door a xam ne jibril mooy suma tur ma am fukki junni at mu xooma ma xam ne jibril mooy suma tur te booba xam na fukki junni ci mu ne ma sellal ma ma sellal ko fukki junni ci mu ne ma màggal ma ma màggal ko fukki junni ci at mu ne ma teddal ma ma teddal ko fukki junni ci at mu ne ma jullil ci suma soppe bi ta hayatin ma julli ci yonent yalla muhammad fukki junni ci at moy juróom fukki junni ci at ñu door ko xamal baatab la ilaha illallah ma ne kon tarbiyawuna na fukki junni ñu door ko xamal la ilaha illallah kon jibril lagi na bok way ñun nak ñoo for jibril ak yonent dañ doon magante jibril dafa ñew ne yonent man de dama jekki jekki sang bi mënumaa jekki ma ñew pour laaj ci la ma yow ku mak yonente ne ko waaw mën naa laa tontu waaye nag ma waxal luy sa lël maanaam luy sa pàttaliku mu ne ko am na am na benn biddiw boo xam ne bu fekkee balaa suux dana mat juróom-ñaar fukki junni ci at man fekkee naa ko muy fenk ak a suux lu mat juróom-ñaar fukki junni yoon yonente ne ko an naa saaka nañ mu man maay biddiw booba nga doon wax kon xam ne xam ngeen ne kon day jibril mag la de waajo la kenn xamul lim doon de bi loolu amee nag moo tax bàyyi ne kay fa mat hii naka may tagge li man ñee ka nga xam ne xadimu saraaho bukki néegam déngëréem ba jibrilu jibril la alla mi nu ka kuñ xoolu tool ala yàlla yàgga guddi bàyyi mu ne kay fa mat hii naka may tagge loo ñeexal ko wasal kaw nu teyule mbindeef min tanaahu tukkee nañ ca leeram nga wasaakate kooku seynu rijaali mooy taarab góor ñi bàyyi mu ne naka may tagge yonent yàlla muhammad mi nga xam ne mbooleem mbindeef yëpp ci leeram nga mu dale indil asal asal mooy lan mooy kuntu kantan lam uraf faadartu an arifani fa xalaqtu xalqan fa bi yaarifooni ne ko naa de ko moo xam ne kenn xamuma ma bëgg ñu xam ma ma bindi mbindeef ci mbindeef moomu lañ may xamee yàllaa fi nekkoon ba fi dara nekkut te ba léegi it ci lool la nekk hadis ba wax na ko kaan allahu wala sayama wowal ana wowal ana xataa maa kaan yàlla nekkoon na dara nekkut ak moom te ba léegi ci lool la yàlla nekk yàlla wàcc bu ñuy wax kansiyatul xaqi <coughs> foofu la yàlla doon waxtaane yàlla yàlla ne yàlla nii nga fa soo mel yàlla tontu yàlla ne ko déedéet yàlla tontu xaat yàlla ne ko ah noo def ba doo mel nii dangaa fasoo nekk comme moo xam ne kenn du la xam yàlla tontu yàlla ne ko man danaa bindi mbindeef moo xam ne ci mbindeef moomu lañ may xamee yàlla door a noppi dégg ngeen baloo la amee nag ah yàlla dal di bind yàlla dal di bind moo mag ne ko kun habibi mu jàkkeeku dal di xool boppam nag gis teraanga ju réy ko yàlla teral te amul lu mu war a faye yàlla mu am kersa lool doomu aadama waxtu woo ko defalee lu ko neex te munut laa fay rek mu am kersa yàlla it defal na ko teraanga ju réy te amul lu mu faye yàlla mu am kersa lool ba mu xamee kersa nag kersa googu waralal ko mu ñaq ñaq woowa ci lañ bundee baarul muhiit baarul muhiit yàlla xool ko ci taaram bu ba muy muy palpali ba léegi nag fàttewut xooli nab yàlla ba waxtu woo xoolee géej mu ngay palpali dafa fàttewut asal moo tax bi nga xamee ne loolu xew na nag ah yonent yàlla Muhammad nag dal di sujjootal yàlla sujjoot na juróom benn téeméeri njunni xat ak ñaar fukki njunni ci xat ak ñeenti njunni te booba xat booba dara xamut yàlla dal di bindi hijaabi hijaabul qudrati हिजाब الحسمة हिजाब المنة हिजाब الرحمة हिजाब سعادة हिजाब الكرامة हिजाब المنزلة हिजाब هداية हिजाब النبوة हिजाब الرحمة हिजाब طاعة हिजाब صفاة hijaabul qudrati yonente ba am na fa fukki junni ci at ak ñaar ci sujjoot ba naan subhaana rabbi subhaana rabbi alaala subhaana rabbi alaala loolu moo doon si karam ci boobale tey ngeen déglu de yéen ñi xam tey yéen ñi mos démb mos tey xam ngeen luy tey dégg ngeen mane ne taalibe bàyyi ku leen bugg a waxal foog nga dugal ci loolu ndax loolu lañ xam dama ne julli bi bàyyi di dikk fii la ko fekkoon alxuraan bi bàyyi di dikk foofu la ko fekkoon ma ne da tiijaan bi bàyyi di dikk fii la ko fekkoon beesal na ko naam waay fa ko fi fekk waaye fukki sa dënn ne maa yàlla nag moom loolu moo bàyyi ko fi indi moom dégg ngeen dañ ko wax de duñ ko mën a ñàkk a wax bi loolu amee ma ne hijaabul qudrati yonent am na fa fukki junni ci at ak ñaar naan subhaana rabbiya laalaa subhaana rabbiya laalaa topp mu toxoo fa di ki ciy jaamul xismati xam na foofa fukki junni ci at ak benn ana lu doon si booba mu nga naan subhaana haali mu siri waa faa subhaana haali mu siri waa faa topp mu toxoo fa di ki jaabul minnati xam na foofa fukki junni ci at ana lu doon si mu nga naan subhaana rafion laalaa subhaana rafion laalaa topp mu toxoo fa di ki ciy jaabu xam na foofa juróom-ñeenti junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaana ra'uufu rahiim subhaana ra'uufu rahiim topp mu toxoo fa dikki ci jaabu saadati xam na foofa juróom ñetti junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaana man huwa daayimun laa yasool subhaana man huwa daayimun laa yasool topp mu toxoo fa dikki ci jaabu karamati xam na foofa juróom ñaari junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaana alhalimil halim subhaana alhalimul hakim topp mu toxoo fa dikki ci jaabul mantilati xam na foofa juróom benn junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaana silmulki laalaa subhaana sil mulki laala topp ma taxaw fa di ki ci jaabul hidayati xam na foofa juróomi junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaanallaahi wa bihamdihi subhaanallaahi alhasim topp ma taxaw fa di ki ci jaabul nubuwati xam na foofa ñeenti junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaana rabbul arsil asim subhaana rabbul arsil asim topp ma taxaw fa di ki ci jaabul rifati xam na foofa ñetti junni ci at ana lum doon sikar mu nga naan subhaanal malikil qudus subhaanal malikil qudus topp ma tawaafa di ki ci jaabu taati na foofa ñaari junni ci at ana lom doon sikar ma nga naan subhaanal qadimil asali subhaanal qadimil asal topp ma di ki ci jaabu tafaati na foofa benn junni ci ana lom doon sikar ma nga naan subhaanal malikul maabud subhaanal malikul maabud bàyyi ne déedéet def doon wax naan subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh ma ne ba léegi dara xew a guddegaañ kooku mooy xaalamu larwaa ku ci dem xaalamu larwaay ngay ragal baay yëngu rooya doy na kiimaan loola tax wuju way ko de man pour man sumay gàmmo dama ciy waxaale way way wali yu njëkk ya dama ciy waxaale way addis yi dama ciy waxaale it waxi Ibou Diouf même ndax ci baay lañ xem ku xem ci baay nag sooy wax dangay waxaale ci baay mi nga xàgg yow bi la lame yàlla dal de xool nag duratul baydaa ba mu ko xoolee nag mu lal rët ba seey ba mu rësee ba seey tool kooku mooy tura duratul baydaa nag tuddee nañ ko ay tur yu bëri tuddee nañ ko sajratul yaqiin tuddee nañ ko malaakam kuróobiin tuddee nañ ko duratul baydaa tuddee nañ ko roohul akbar bàyyi mu ne tur yaa xuute waaye maanaam a menn la bi loola amee nag yàlla nag dal de de xool duratul baydaa bem rëpp ba mu retee dal de seey mooy baarul muhit baarul muhit boobu mu dal di koy digal mu dal di duusu ba mu duusoo génn puurit puurit moomu ci la yàlla jëlee ban ci la yàlla jëlee jëlee suuf su ko defee nag mu dal di koy xool mu def tëxët mu dal génn jiblu asamaaw mu bind ko mooy asamaaw bi loolu nag te bind bu njëkk baa ngoog roxo nag ba yàlla bindee roxo yàlla def roxo génn roxo la woon hadis ba wax na la ko inna arwaahun mujannadatun inna ruuhu arwaahun mujannadatun wa maa taarafa minaa talaf wa maa tanakara minaa talaf roxo genn roxo la woon bam nekkee genn roxo yàlla ne ko tojal de nekk di ay roxo yu bëri roxo ne ko duma ma toj mu ne ko tojal topp ndigal mu dal toj nag nekk di roxo yu bëri roxo yu bëri yooyu ñoom la yàlla feeñu xoon ne leen ndax duma seen borom bànneexu bànneexab neexab baatab yàlla ba ak taari yàlla ya nga xam ne moo rafetal rafet dal day gëlëm loo roxo yëpp seen xamul loo war a wax yore roxo yonent yàlla moo man moo def fannaaw baqaaw xam ne fii day bàllee lañ fi war a wax mu ne bale sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne lool xew na nag ah roxo yooyu nag ba nga xamee ne yàlla bind na roxo yi nag bàyyi mu ne sappe ya ñetti sappe lañ xoon kerak sappe su jëkk sa mooy yonent yi ak xaarifiina yi daanaka seen daraja yi soreyante wuñ de mu ne ñooñu ñu nga doon dégg baatab yàlla ba di gis itam waaw jëmm ja sàppe si ñaareel sa mooy jullit ñi nga xam ne dañoo dëggute amuñ ci naafeq dara bañuñ benn waliyu ñooñu ñoom dégg nañ baat ba waaye gisuñ jëmm ja sàppe si ñetteel sa mooy xiifar yeeg naafeq yi ñoom dégguñ baat bi gisuñ jëmm ja coolaa tas rek ñu ne luñ doon wax bii ga waay mu ngi fii xam ba tey de roxo yooyu nag yàlla ne leen wannante leen ma ne wannante googu moo indi jurante roxo gu wen noon benn doom yaay nii ak benn doom roxo gu won noon ñaari roxo yaay nii ak ñaari doom roxo gu won noon fukki yaay nit ak fukki doom roxo gu wonnu toon dara nag ordonnance yeeg saafara yeeg bindkat yeeg docteur yi munuñ ci dara wonnoo hoon démb kon doo mën a wonna tey ma ku koy do foofa nga ko doxee hoon kon nag lu lu ma ne hadi gi doo bi loola xamee roo yooyu nag neexal taru yàlla yu rafet yi ak neex baatam gi jàpp leen ñu tiit ba naaw bañ naawee roxo roxo gu jublooxoo nag sa moroom da ngeen buggante fii ci àddina di leen saraxule la ngay séeréer it da ngeen daje ba buggante ndax da ngeen buggante woon ci asal kon foog ngeen buggante fii roxo gu dëddooxoo nag sa moroom di leen dee ak doom law it gannaaw dëddante ne woon ci asal foog ñu dëdduxante fii ma ne amul dara lu xew tey lu xew démb la woon dañ koo door a feeñal tey sallallahu alayhi wa roo googu nag roo yooyu nag a ah, yàlla bogo bogo leen nag garde leen ca gardewu kaayam ba ba nga xamee ne nag kooku mooy xaalamul larwa pour gàttal nag comme guddi gi na ba yàlla buggee bind xaalamul las baa te mooy pays yaram yi mooy pays boo xam ne ak gis mën na fee xam ak dégg man na fee xam ma bëggal la nga bëggal ma man na fee xam nga jox ma ma jox la man na fee xam nga wax ma ma wax la mën na fee xam ma ne boobu la tey nag mooy xaalamu las baax ba ko yàlla bëggee bind dafa diisu malaaka yi fekk ko jëkk mooy dafa hebal jibril ne ko demal ci suuf nga tibbal ma fa juróom benn fukki xeet yu bokkut ma bind ci mbindeef moo xam ne ku ma ca jaamu ma yóbbu la aljanna ku ma ca mooy ma yóbbu la safara mu ne ko baax na dal di dem ni mu ngay tibb suuf ne ko looy def mu ne ko yàllaa ma yónni ci yow ne naat tibb ci yow juróom-benn fukki xeet yu bokkut mu bind ci mbindeef yoo xam ne ku ko ci jaamu mu yóbbu la aljanna ku ko ci mooy mu yóbbu la safara mu ne ko lëntulu naa la ci màgg ak yàlla mi la yónni bul tibb ci man mu ko xaj buy dem safara mu dem mu hebal mikaayil mu wax ko ko mu baax mu hebal israfil mu wax ko ko mu baax mu hebal israil te mooy malakal mawti nag ba mu demee ne céex na di mu ngay tibb suuf ne ko looy dem mu ne ko yàlla ma xebal ci yow ne naati bi jëw juróom benn fukki xeer yu bokkut mu bind ci mbindee moo xam ne ku ko ci jaamu mu yóbbu la aljanna ku ko ci mooy mu yóbbu la safara mu ne ko lu naa la ci màgg ak yàlla mi la yónni bu tibbi ci man mukk xaaj buy dem safara mu ne ko may lentulu naa la ci màgg yàlla mi ma yónni def li ma yàlla digal de moo ma de def moo ma gënal def li ma digal yow dal de tib yët yàlla ba mu tibbee yët yàlla yàlla ne ko ah yow ma yónni ma yónni sa mbokk yee ñu dem indi yow nga dem indi mu ne waaw man damaa dem bu lentulu ma ci yow mayit ma lentulu ko ci yow mu ne ko wàkkil naa la seen roxo yi nag waaye du mooy lay kat yi fi yàlla kenn du ci dugg bi nga xamee ne loolu xew na nag yàlla bëgg naa bind aadama nag ci ñetti jamono dal di diisu malaaka yi moom la ñuy nettaleel ci saaru laan ne wa is qaala rabbuka lil malaikati inni jaayidun fi lardi xalifatan qaalu atajhalu fiiha man yufsidu fiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qaala inni alamu ma la taalamoon dégg ngeen yàlla dafa dikk ne malaaka yi dama bëgg a def ci suuf suma kuutal malaaka yi ne ko doomi aadama day dañ fii xeex ak xuloo ak tuurante ay dàmm da yàq suuf te ñun dañ lay sellal de la màggal ñun suñ lekk mooy lan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah allahu akbar loolu mooy suñ lekk de yàlla ne leen xam naa lu ngeen xamut dal da koy bind ci ñetti jamaano ñeen fukki at muy ban bu tooy xeeb fukki at muy ban bu liix ñeen fukki at muy ban buy keleng keleng yi ne téeméeri xeet ak ñaar fukk yi comme ku saar wee la ko waxal ba adama matee mu jël xam-xam yépp xamal ko moom lañu ñu saar wi ne télé ba tey ne wa allama adama lasmaa kullaha asmaaran lahum halal malaa'ika mu jël nag aadama nag bind ko ci ñetti tawru iblis fekk ko fi ni jëma ngi joo xam ne tan ma nekk ca kawi kaw doomam yi danañ ko fetel yóbbu yóbbu yóbbu yóbbul ko doomam yi ñu lekk ko ca marché ya de jën wa nekk ci xoot xoot ak géej ga wallaahi doomam yi dañ ko mbaal yët ko seeni jabar ñu lekk ne xaax ne tëf dal de koy dal de ko koy tafli bam ko ko taflee iblis jibril dal de ñëw fekk gis taflit wi dal de koy keef bam ko keefee sànni ko keefit woowu moom la yàlla bind mooy xaj looloo tax xaj mënut a tàggoog doomu aadama ndax ci moom lañ ko jëlee loo ko dóor dóor mu topp la ma ne cosaan ngoog de gaañi bi loola amee nag bi loola amee nag aadama mat na waaye roxo nekk gut ci te nit ku nekk celam jëkkoon lay mujj de alxuraan a ko wax kama badaakum tu'adoon ma ne nit ku nekk ci lam jéen beenoon ca lay dellu bi loola amee ne la aadama bind bi mat na waaye roxo dugg gud ci lu ngeen xam nag ci bu nit dee te suula guñ ko bu boobaa jëmmi bu mburung la delluwoon na ca cosaan bi loolu nag yàlla dem yàlla xoo roxo ne roxo kaay roxo ñëw mu ne ko dugal ci jëmm ji mu ne ko mukk man nekkee fu ma ci saatul xaliya lu moy di dégg sa baat yu neex yi de sa taar yu rafet yi nga bëgg maa dugal ci ci ga du ma ko nangu de mu ne ko dugg ci ci te say génnee wéggit ci forcé ngay génn bàyyi mu ne xemuñ foofa de ngeen déglu li bàyyi wax nag bàyyi mu ne xemu yàlla xemu tag yàlla xemu tag roxo foofa de mu ne lu lay xamal ne yàlla xemu tag roxo foofa mooy maj soob boo xam ne seedu na xam ak yàlla ga nga topp ko de ko sàmmaawul na muy jaayoo ba dootu yëg ne kam nga moo mu ne booba noonu la roxo meloon de yàlla soo malaka yi ne leen sikaral leen ko déglu leen sikari malaaka ya malaaka yaa nga naan lakal majdu lahu wal mulku lahu laa ilaaha illaa anta lakal hamdu mawlaana lakal hamdu wa sukru wa min jumlati naama qoli lakal hamdu lakal hamdu mawlaana lakal hamdu ya rabbi fa min jumlati naama qoli lakal hamdu lii lañ doon sikar ndike ta hooro ha ngay jaayo de jaayu de jaayu yëgut lu may dugg na ci aadama mam ne du ca dugg man di teg si karangoog ba ca duggee yëgu ko nag ndi dugg na be ci xay soo mi yetuga te mooy nexe nexe ya te waxtu wu roxo be ci nexe nexe ya ino jog rek jog toog rek a cee war a tege su ko defee aadama jog toog ne ti soo ne alhamdulillah malaaka yee ne ko yarhamukallah mu ne booba laa xam ne danaa def luñ ma yërëmee dégg ngeen gàmmoo ngoog noonu lañ koy defe la ca def leneen la waaye nii mooy gàmmo mooy siira noonu la leen aadi waxaloon bi loolu amee waaw sama mu ne mooma mayoon kinni caam ne su fa bëggaatee beneen jabar mu dolli ma jërëjëf bu ñu ko guddi gi mayoon dinaa la wax la ke la yonente waxoon kéwél ga waaye xam ma guddi gi dina ko xattanam déet bi loolu amee nag roxo ngoog ah mat na nag ba adama jógee ne tisoo ne alhamdulillah malaaka yi ne ko yarhamukallah mu dal di nekk de aadama moo xam ne nag xamut ndey xamut baay xamut kum nekkat ci suuf xamut kum nekkat ci aljanna ba kenn koo xam ne amul ñaareel aka am lum niroot aka am lum niroot xaw nag lan la waaye nag wala raamee nag aadama nelaw ci gàttal ci takkusaan ca boori takkusaan faru sàlluwe tam ñu bind ci jabaram xawaa mu dal de xeewu nag lii jot góor ñi ci jigéen ñi dal de koy jot mu ne yow ne mu ngi koy laal malaaka ya déngoo ne ko maa yaa aadamu ata suudi maraha bul ko laal lu mooy batan ko canoo ngoro ko la wax mu ne ko ña luy ngoro gi ñu ne ko jullil ci yoon ci moo mat mu dal di julli ci yoon ci moo mat ñaar fukki yoon ñu ne ñetti yoon ñu may ko ko sancam haddinaa ngoog bi nga xamee ne loolu xew na may nañ ko ko nag ñu dal sëy bañ téye xawaa ci boppam nag dal de xam dal hëmb ñaar fukki biit biit bu juddu rek de góor jigéen bañ màggee góor gi ci biir bii moom la ñuy may ndaw sa ca biir bële siisa rek mooy ki nga xam ne moo juddu te àndut kenn lu waral loolu nag xaqiqatul muhammadiya gi fasooroofu ci moom te googu leer duñ ko seddale moo tax moo tax mu juddu te àndut ak àndut ak kenn de loolu tax bàyyi xalifa ne ko bi ka saa min qabli adama siisa laka tuxtaaru kay tatina banisa sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne loolu xew na nag tiisaa ngoog nag juddu moom kenn taandu ta na waaye nag mayanteeg siix ya nag xaabil ak xaabil ñoo ko yàq xaabil ne moom jigéenam bi lay jël ndax moo gën a rafet ma ne yàgg nañoo def xayda xaabil ne gan daawuñ ko defee nii nañ ko defee nañ ko daan defee ñu xuloo ci loolu ba xaabil ree xaabil mooy bàkkaat bi njëkk a wàcce ci suuf de waaye yonente ñu tax a jog nag xanaa lii dafay xàll woo xam ne mënuñ cee ñàkk a jaar rek di xamee ne loolu xew leer gaa ba nga xamee ne aadama bind nañ ko nag jël xam-xam yépp solo ko ko nag na bu ko malaaka yi comme kontoroon nañ ko yàlla dal de xoo aadama xoo malaaka taaj xoo jël xam-xam bi solo ko ko nag dal de leen examen malaaka lii lan la xamuñ aadama lii lan la nangam la da ko wax da ko wax da ko wax ba xam-xam yi mu ko war a xamal lépp jeex nag malaaka ya déngoo ba tey ci alquran ne ko xaaloo subhanaka la man lana ila ma alamtana innaka antal halimul hakim ma ne alxuraan mooy docteur bi nga xam ne mooy jàngale yëf de bi nga xamee ne loolu xew na nag yàlla nag ne aadama yàlla nag ne malaaka yi gannaaw moo leen xëpp xam-xam nag te màggal borom xam-xam war nag kon nag sujootal leen ko ñoom ñëpp ñu sujoot iblis lànk ne moom du ko sujootal lu mu defu lay def ne ana xayru minhu xalaqtani min neerin wa xalaqtahu min tiinin de man maa ko gën man ñu ngi ma bind ci tàkk-tàkkalal safara te moom ñu ko bind ci ban bàyyi mu ne iblis daf koo mu ne xanaa xamul ne safara loo ko dénk boo ko taxawul mu yàqal la ko soppil la ko këriñ suuf nag moom soo ko dénkee soo ko dénkee benn mu indi la ko téeméer soo ko dénkee téeméer mu indil la ko junni soo ko dénkee junni mu indi la loo xam ne xamu tab lim kon nag bu xamoon xam-xam du wax loolu de bi nga xamee ne lool xew na nag Adama ngoog leer ga jaar na ci moom moom la bàyyi de nettali ci xasida mi nag ne faqad ixtaara tànn na rabbuna borom sunu adaman aadama waxtaara tem sannati santi sawatiyu tem dénk ko haawil ma haali kaya ji lakk ji diri ko bi nga xamee ne loolu xew na nag siisangoog leer ga jaar ci moom aadama xoo ko bem ñëw mu ne ko leel siisa leer a ngi goo xam ne moo tax ñu bind ma moo tax ñu bind la moo tax ñu bind lépp luñ bind ci kaw suuf wallahi leel siisa leer gi na ko wattu bul ko sotti ci lu mooy roxom ak jigéen julaab de di ko dénk da ko dénk ba siisa mu ne damaa damaa faroon yaakaar ne maa koy far jiitu far leer gaa ngoog jaar na ci moom naka noonu suma idris leer ga jaar na ci moom idrisa mooy kan moom la ñu alquran de nettali ne waskur fi kitaabi idrisa innahu kaana sadiqan nabiyan wa rafanaahu makaanan haliyan kooku mooy yonti yàlla idris leer ga jaar na ci moom naka noonu yonti yàlla noohin leer ga jaar na ci moom noohin mooy kan noohin mooy ki nga xam ne dundoon na juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk kuy waaja dee xommat say doom ba xàgg ci moom ne ko gis nga mag mii lu la wax du tëgg sa maam fi la ko fekkoon sa maam Matar fi la ko fekkoon ci lool lañ nekk ci loolu lañ nekk ci loolu lañ nekk ba nga xam ne mooyin wóor na ko ne ñuy gëm-gëm nañ ba pare te ñi ci defi dootuñ gëm te duñ jurlu gëm mu ñaan leen rabbi laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayaaran ñoom ñëpp ñu dal di xalaku yàlla ne ko nangul naal ak ñaan kat waaye na nga xett gaal ci suñuy pexeeg suñuy ndimbal mu dal di xett gaal ga ba muy xette gaal ga nag gaañ a romb ko fa te yonent bi doon yonent yonent léegi mu ngi sarfaan ci léegi dégg muy xette gaal ga ba gaal ga mat nag gaañ a romb ko fa def gaal ga cabinet ku bëgg a xajatu rek dem ci gaal ga xajatu ku bëgg a xajatu rek dem dem ci gaal ga xajatu ba gaal ga feer ba ko yàlla buggee dindi nag xool leen ni mu ko dindee dafa yebal njàmbal ci réew ma su ko defee njàmbal dal di ñëw ba njàmbal ja ñëwee ñu suul rek xendoo suul rek xendoo est-ce ñun ñu def ñu jàmbal moo gis ngeen jàmbal joo xam ne saafara mënu ca dara docteur mënu ca dara moo li jaaxalu leenam waaye fekk yàllaa leen bëggatu woon rek mu am benn benn jigéen boo xam ne dafa xëbatu doomam dem ba ci gaal ga doom dal doom ja dal de wicc dal ne puy ci xajatu ya mu dal de koy labbi raxas njambal ja dal de xànd ak raxasit ma dal de wér ba mel ni mos ta njambal mu dal de ñëw ne li ci te gaal ak mooy nga ko te yóbbu ko doomu wér Ah. gaañee yóbbu xale ya rek di xajatu di dindi xajatu ya rek di sañee xale yi ñu wër ba mujj gaal ga seen wëcc ñi mujj raxas gaal gay sañee xale ya bàyyi mu ngóor ñoo ko fa defoon ñoo ko dindi <laughs> ma ne wala ne kooku mooy yonti yàlla nooyin leer ga jaasa ci moom naka noonu ibrahim ibrahim mooy kan ibrahim mooy ki nga xam ne moo juddoo woon ci jamono inam roos ci xam lu gudd la waaye lu ca mën a xam taalal la noonu safar dañ ko taalale safara njanaaw mënta naaw ci jaww ja iblis ñu yëkkati yëkkati ibrahim xasan nañ ko iblis feeñu leen ne leen malaaka yee ko dolli poids na ngeen xoo jigéen ñi ñu dindi seen musóor yi su boobaa malaaka yi danañ daw ngeen xattan ko ñu dal di def loolu malaaka yee dal di daw nag ñu dal di koy xattan nag sànni ko ci min jëmir dañ ko sànnee ca sawara wa nag jibril da sëriñ fekk nag ne ko doo tawat sa borom daraam nit mi métti na lool mu ne man de tawatu nga yàlla daa kaw xam jëm wari na ma walis ma de ko laaj daa bàyyi ne ma xamam fannaawa ngoog kuy fannaahu nga dem ci péeyam yàlla ba gisul lu muy ñaan gisul ku muy ñaan mu ngi ca péey ba rek de kenn loolu moom moom la Ibrahima defoon waaye bu la xamal ne ma foor na ba nga xamee ne dugg ba muy xaggat rek la mi ñu péeyam yàlla ba ca alxuraan ne ko yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima ma ne lii lañ bëggoon kii bi bi nga xamee ne loolu xew na nag sànni nañ ko ci sawara waaye baatam salaamu ba musal na ibrahim musal na ko ba lakkut musal na ko it ba tëdd ba gaañu ko kooku leer ga jàmm ci moom doonoo taw waykat ba ne ko barxaama ci njël deen yaa doon abi lan di yaa maanaam yaa doon bàyyi yonente yi waaye barxaama ci mujj itam mooy bàyyi wal yi loolu la waykat ba wax bi nga xamee ne loolu xew na nag sallallahu alayhi wa sallam leer ga jàmm ci ibrahim naka noonu leer ga jaar na ci Ismaël Ismaël moom lañ ne moo naree di te yàlla jot ko yàlla jot ko mu xam mu bàyyi ko aljanna te alquran nañu ko fatay naa ko bi si biina siin ko koy leer ga jaar na ci moom naka noonu suma hat naan topp hat naan baadu ca gannaaw suma maat topp maat wa nisaar ak nisaar asim magalal itil kila ali ci mini rang rang mu rusululu Mularun mular najluhu doomam jaar Ilyaasun Ilyaas maa mudrikata ànd ak mudrikata maa Qusaymata ànd ak Qusaymata àlla saalin ñu day jàmbaar kon ni haada doomi kile kinaanatun kinaanatu la nadri ak nadir yut nii def na xakkan ko maalikin mu jëm ci maalik aslul fiiri kay ca saanal siir saabil xisaari kaa ji sell ci ndoxam be wéet xaalibun xaalib najluhu doomam jaar luwayun luwayun wa kaabuna kaab najluhu doomam muratu muratu kilaaba kilaaba ahaali kaa li koye gaañangoot léegi wandeelu

mu jëli leen ña nekkoon sëba mu jëli leen dajale leen bañ dajee xaar makka fekk mbuur fekk bi nag waaw ki nga xam ne mooy buuru jamono jooja mar na mbuutam sàngara ba mbaree sàngara nag ñëw ne ko tey mu kilaas dama bëgg dama kaaba gi ci mbuusam sàngara tayle la mu ne ko indi mu tayle ko kaaba gi ci mbuusam sàngara xam ngeen ne kaaba gi xëpp na mbuusam sàngara de waaye lu ca doon hikmatu mooy suma waajee bëgg ñibbisi te xàllal yi muy war a ba la eh. bi nga xamee ne loolu xew na léegi ñëw ba ci Abdul Mutalib Abdul Mutalib a mooy ki nga xam ne moom lañ gasoon sam-sam bàyyi mu ne niñ ko defee dafa tëdd guddi ban tëddee guddi lëf xee ko ne ko hee Abdul Mutalib defal sam-sam ca la ko xeyaatoon xeyaat ko ne ko hee Abdul Mutalib gasal biiru rahmati ca la ko xeyaat xeyaat ko ne ko hee Abdul Mutalib mane nga gas Touba bay mu ne tam sam xam na fanweeri tour yo xam ne benn bokku ci morom mate bët du set rek tuddee nañ ko tur wuñ ko tuddee futoon démb ba loolaa amee nak mo dal de laj ne mo tam tam kiñ lay kiñ may gas loo moo fan la nek ñu ne ko tam tam mu ngi ca diggante kër xorondonga ak sën ba ak sabarit sa ak kaaba ga diggante bobu foofu la tam tam nek ak fa baxañ bay ciop mom la bayra Alaaji Malik di wax ci classe momit ne من بين فرس ودم عند قرية نمل عند نصر قراب البين يسوني mané gañi ni mané gañi ni lañ mané ndanani ndanani ñoom ci seeni waxi sëriñ la ñuy xam ñun nag dañuy wax waxi bàyyi rabaale kon waxi wali yee ca def loolu mooy waaja ndax ci loolu la ñu yaw te looloo jóg it nag bi nga xamee ne loolu xew naa nag ñu ne ko sam-sam kii yaay gas loo mu ngi ci diggante kër ak xorondoom nga ak sën ba ak sa bërit ba ak kaaba ga ak fa baaxañ bay cog soo demee ci diggante juróomi mandarga yooyu boo fi wutee sam-sam da nga ko gis mu yor jaloreem nag gis na kaaba gi gis na itam sën bi mu ngi gis itam baaxañ buy cog mu ngi mu mu waaye gisagut sa bërit si mu gis nag benn benn buuse boo xam xamat nawu nagam bés foofu mu tëdd humre mu daldi ko fay reen di suuf yàpp bayi fa sa bëri sa gis na mandarga yëpp xam ko defee nag muy sëpp sëppal ba jot pindal Ismaïla ba ba mu jotee pindal Ismaïla ba nag Quraysh ne ko hey looy def mu ne leen yàlla moo ma digal ne naa gas sam-sam de ñu ne ko mukk doo ko gas yow kenn da ko daa daa roo ci sët ba ci sëtaat dañ koy mën a bokk bokk ko suñ ko mënta bokkee nga bàyyi ko de mu ne leen yàlla digalut yàlla digalut leen ko man la ko yàlla digal de lu jaman mën a ah le pour nak, muy muy gas nak xamut lu may xaari sakab xajam su hendo de gas bengon su gaaya ba desul kan ma waaye bu xat bi baye rek mu ñew dakale ndax moy seen kilifa ci lool lañ nek da nga xamne ne quraysi ci xulo nañu mom xulo bu metti dañ dem sam hatelu ji mom la baye xali ba ci am ci خاتموه ليمنه من الحبر وقالوا إنا به شركاء صلى الله عليه وسلم bi nga xamee ne loolu xew naa nag ngay dem tànn nag nañu ngay xattalu ci buxaaba ba dem nak ñu xuloo xuloo bu dem leen ba fàtte yóbbuloo ndox ñu dem ba ci yoon nag mar dog leen ba leen mar wa dogee nag ñu ne hé est ce que ñun jëm kuy dem taal doxam ñaari génn goo dëkk bi nga baaxee ko mar jot na moo te xagga goo fa nga jëm te rut ngaa dëpp moo ñun fuñ jëm fuñ jëm xanaa boog dañuy dajaloo ci benn pak rek ñun ñëpp ñu deexandoo abdul mutalib ne leen déet loolu du pexe de nañ def ay bàmmeel bañ gas buñ gasee ay bàmmeel fekk beneen waaye ko abdul mutalib ne ko nañ gas ay bàmmeel buñ gasee ay bàmmeel dugg ca ba kenn ku nekk sa bopp yi feeñ ku jëkka dee ñetteelu dikk suul na bu yàggee kenn ku dee ko amul ku ko suul mooy def ci ñun moo gën mbooloo moo xam ne dee nañ ci kenn suulu leen ñu d'accord ci loolu bañ d'accord ci loolu nag gas ay bàmmeel sa bii nekk dee Abdul Mutalib toog ba mu yàgg mu ne est-ce góor kay dafa war a jóg de sàkku ba dee fekk ko ci sàkku ga waaye warul sa bii nekk dee rek dal de rek war gëleemam a gëleem ngay def ñaari tànk rek ne wal wal wal wal wal ci tànkal gëléem nga dal de dox fukki xasab ci ndeyjoor fukki xasab ci càmmooy fukki xasab ci gannaaw fukki xasab ci kanam mu ne leen eh yéen jaami yàlla yi ñëw leen yàlla invité ne leen ndox ñu dal de ñëw nag ba ñëwee dal de naan duy seen i mbuur sangu seen i janaba def lépp lu ñu war a def ba mu ko defee bañ paree nag Abdul Mutalib ne leen kañ leen ñu dem ñu ne ko buñ jëm ñu ne ko xanaa saam jëmoon ñu ne Abdul Mutalib ñu ne ko déedéet yow mi jette yow mi ñëw ci halal kete ndeng bi yalla jox la dom mu tete ni neexé ni ci digge halal kete ndeng bi yalla mi la di defal tranga joju mo la gas lo sam sam xaccio tuñ ko yow ñu la wañé ko nak bañ wañé ko abdul mutalib ne suma gasé sam sam mu bënn ma am fukki dom yu goor ca makka yo xamné suma méré ñu wër hand ak man su baba dina ci rek kenn jamo ko yalla def na ay nak ndax wali buñ ni féré rek yalla may leen lañ ñu def gas sam-sam bënd na xamna na fukki doom yu góor ya nam ko waxe mu tudd nak fo ne tudd rek a da ko haa xeyaatoon haa ko ne ko xee mu tali defal li nga waxon mu seen sen wër mu xëy ne nañ ma nañ ma nañ ma jëndal nañ ma jëndal xar mi ngi ci makka dama gën fi gën ma jaaxal ñu jëndal ko xar mu reey saraxe te dugg di ñu ne ko xee bëgg nañ la ko xar mu ne nañ ma jëndal yeeku nak ñu jëndal ko yeeku nak mu reey saraxe ñu ne ko xee Abdul Mutalib bëgg nañ la ko yeeku nak mu ne jëndal leen ma kuyal gëleem li xëpp ci makka ñu jëndal ko kuyal gëleem mu rey saaxee tëdd tëddaat ñu ne ko hee abdul mutalib bëgg nañ la ëpp kuyal gëleem mu ne moo jaa nag war a ëpp kuyal gëleem nag ñu ne ko xanaa la nga waxoon yow yaa waxoon ne soo gasee tam suma bënn nga am fukki doom yu góor yoo xam ne soo meree ñu mer ca makka handa yow su boobaa da nga ca rey kenn jaamoo ko yàlla loolu lañ lay laaj mu dal di dajale xale ya nag wantale bantab dee badal abdoulaye té mo mo moo yonent yalla Muhammad mo nek ci xarxanamam ba nga melni jantam jolloor mu né nañ ko defat dafa joom ñu def ko ñetti yoon xalé yi ci def na joom té xamu ci xana nga def li nga bëgg def kay mu jël abdullahi nak diko diri diko ko ci asaf ak nayila ta fa ñi rendé ci seen xat ray ci dengo at né ko Abdul Mutalib loy def yi mu né dama dalanté wona yalla né suma amé fukki doom yu góor dina ca rey kenn jaamoo ko yàlla loolu ma yalla fatali loolu la bëgg a def ray ci né ko mukk ñu fi tëralal aada ju bon joo xam ne dangay dee bàyyee ñu ko de mu ne lu ciy pexe ñu ne nañ dem ci xàttekat yi kañ dem ne leen luy seen dëye mu ne fukki gëléem mu ne kon taxawal leen xale bi taxawal fukki gëléem su bant bi dalee ci fukki xam leen ne fukkee jotam su bant ba dalee ci xale bi nag xam leen ne ndollal lay laaj xam xam-xam yàgg na fi de ñu taxawal fukk taxawal xale bi bant bi dal Abdoulaye bàyyi mu ne dañuy dolli par fukk tontu ko benn ma téeméeri gëléem banta ba door a toxoo ci Abdoulaye nag dal ci gëléem yi ñu dal rendi yëpp xaaye muñ ko kenn nag xama xaas ñoo joxe moo nag Abdoulaye de daggu ci mbeddi Makka jigéen ñi dal di koy gaarlu ñu ne Faatumaatul la ñu ne Xutaylatu la lu ca mën a xam daal ndaw na ko kaay booloon man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëléem yi ñu la jotee woon mu ne amal xaraamu ma maa tuddoon ko iblu xaraam de xam ko moom la bàyyi wax ne xaala amal haram fal mawtu awla min haramin maqaalu ahlul kamaadi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne loolu xew na nag ah abdul mutalib a ngoog abdoulaye nag mel ni jantam jolloor ngir lera yonent yàlla muhammad gi melxeti ci moom lera yonent boobu moo doon melxeti ca waaja kem ni leen ko haadi waxee dafa am benn jëme bés ca medina booba gune laa Wow, mulai way woy woy woo xam ne moom la ñu bus siap de woyal ci am siya naan sayidun lakuho tabasumu wal masyu mu wa nawmuho defaa ma nga naan yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam dënn baa nga mel ni mermer ba ya dañoo saaraat te dañoo weex ten kala dafa yaa te dafa am yàpp ma yót waaw bëb ba dafa te buy daagu mel ni xaysar room mel ni ku bàyyee ko ci mbartal jëm ci dama waaw mu ngay lim de lim de lim ba mu yàgg ma dend ak benn waay ne ko pëkk pëkk ne ko xoolal ma sama waa ji ndax li muy wax mu ne ma harfan di harfin li mu koy waxee rek noonu la nekkee ci moom ah kooku mooy Ibrahima de te kat ba tey ma nettali leen gàmmoo nii la dafa am benn waa dafa am benn siyaara ñu ngay siyaara su waaja ku nekk foog ne yow lay xool wallahi la muy xool jënd na la ndeysaan nag mu am benn muy waxtaan rek di waxtaan rek di waxtaan ba mu yàgg nag ay jigéen nag ca boor yi mbaar ma ca buntu kër ga ngay waxtaan mu ne Aliou Diagne waxal ni ñi ñu déglu mbaam mu noppi Aliou Diagne ne bàyyi ne ngeen déglu mbaam mu noppi dem ngeen daawa lool ndaw sa ne wala ci suma kanam ne wallaay wax nga dëgg ñett ñun kay ñoo dem daayo ñun ñoo dem ba yàlla ku dem ba yàlla dem nga fa daayo xew wallaahi bu may ma ne ci fanaanoon daayi mën nañ cee fanaan ba bët wallaahi ma la mbir mi nii la ndax lu xew bi nga xamee ne loolu xew na ñu wéy ci yonent fu ñu ci yonent ba bunt bi jeex naa leen ci nettali ñetti mbir yu bokkul su ko defee ñu xamee ko guddi gi ndax guddi gi fa jeex ba pare cey bi nga xamee ne loolu xew na nag Abdoulaye Ngor mu dal dem ci Abdul Muttalib baayam naka man de bu ma dugg ci mbedd ma tey jigéen ñaa ngi may gaarlu te man bëgguma def lu xaraam dama bëgg nga wutal ma soxna te boo may wutal soxna nag da nga dem ci banni maxsoom te mooy bannoo soorata hmm. nga wutal ma ca jabar mu dal di dem ci bannoo soorata takkal ko ca aminatu bintu waabin moom la baaraaji malik naan aminatu bintu waabin ibnu abdul manafin ibnu soorata ummul mustafa arabi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne loolu xaana nag na ko ah, takkal nañ ko aminatu nag ci weeru rajab rajaba ngoot ci lañ mayee abdoulaye aminatu ndey yonent ci lañ ko mayee يلا لجبريل تخاو جي تخاو ويا أهل صدرتي ويا سكان السماوات والأرض إن كلمة الله قتمت وحكمته نفست ورحمته قلمت سيدي جار زمين أشد قرخ أجمهن المسمى بمحمد وأحمد وطه ويات الناسقه بدينه كل دين قرخ ملان من حرم لروا إلى برائي لفا باني الله باني الله شيء نوح دمنا دمنا يني غا خمني يني ويهني حرات يني غا خمني يني يني يني سيدرة المنتحى يني غا خمني يني ويدك أسماني جنوم نعم yéen ñi nga xam ne yéenay way dëkkee suufi juróom ñaar yëg leen ne baataw yàlla ba mat na la waxoon ne dina ko def def na ko kooku mooy kan mooy sidil lamin mooy sanga buñ hóolu ba mooy kan tuddee nañ ko ahmad tuddee nañ ko taha tuddee nañ ko yaasin diineem li na mboolem diine yi te kat kooku bàyyi ko na xalamul arwaay ñibbi si na ba asbaa ndokkeel ñeexal na aminatu bay mar ne ci ma jàngal nabi taayib mu ne ko yow yaay kan mu ne man maay waaw yonti yàlla noohin alayhi salaam ci weeru ñeenteel aji ñëw ñëw na bëggal ma man aminatu ni ma bëggal yow mi nga xam ne yaa nga sayyid sëriñ wal nabiyul hafiz mu ne ko yow yaay kan mu ne man maay yonti yàlla idrisa ci weeru juróomeel aji ñëw ñëw na bëggal ma ni ma bëggal yow aminatu yow mi nga xam ne yaa nga sayyidil basar mu ne ko yow yaay kan mu ne man maay yonti yàlla hud alayhi salaam ci weeru juróom benneel aji ñëw ñëw na bëggal ma ni ma bëggal yow mi nga xam ne yaa nga nabiyul hatimi يا كان من ما يمشي على ابراهيم الخليل ci weeru juróom ñaareel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow mi nga xam ne waaw yaa xambu waaw nag yaa xambu itam waaw seydil karim ma ne ko yow yaay kan mu ne ma maa yonti yàlla ismaayil maamam ci weeru juróom ñetteel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow mi nga xam ne yaa xambu xaatimi na bii wa imaamu mursalin mu ne ko yow yaay kan mu ne ma maa yonti yàlla muusal kalimullah ci weeru juróom ñeenteel aji ñëw ñëw na bégal ma ni ma bégal yow mi nga xam ne yaa xambu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko yow yaay kan mu ne man maa yonti yàlla xeesaarahuna looloo tax alquran ne ko ومبشرا برسول يأتي من اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم أمينة لهم بكلب ci lañ mayoon aminatu abdoulaye mu jur ci yonent yàlla mohamad salallahu alayhi wa sallam rajab ci la tebu kamil juddoo ca tay bañ seen xalxamit ci tàkku saan ca ne ma ma maam maam astu jànqaba mu ne ba ma juddoo ko rek buñ ma la góori xay bu yëpp jaayanteeg man may seen sëriñ loolu mu ngi xewoon rajab rajab ca fukki ban yaag juróom desam bi ci la waa jëm ñibbee xay bu ci london rajab ngoo gaañi moo tax rajab foog ñu màggal fa rek li nga xamee ne dara xaana nag bàyyi ne nooru hoo leeral nga nooru hoo xamam nga awalul wujoodi moo njëlbeen ak bindee bi hoo joodan ca xam foofa moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu lu sooli moo cosaanal bàyyi walan jaaleeg doom yi bàyyi mu ne leer ñeenti leer la leer gi nga xam ne def lay wun yiif yi te du ko gis ak leer gi nga xam ne def lay wun yiif yi te da ko gis ak leer gi nga xam ne def lay wun yu nëbb yi te wan la ko ak leer gi xamal leer yi far dégg ngeen ni ma ko toftalee leer gi nga xam ne daf lay wan yëf yi te du ko gis mooy leer ak lamp bii wan na la bi nga gis li nga bëgg a gis wan na la bi nga jàng li ngay bëgg a jàng waaye moom sax yëgut ne tàkk dégg ngeen leer gi nga xam ne daf lay wan yëf yi te da ko gis mooy leer ak bët wan na la ko jëlal leer gi nga xam ne daf lay wan yu yi la ca baax mu wan la ko la ca bon mu tere la ko mooy leer a rabbaani mooy leer a xel léegi nga xam ne moo xamal leer yi nag mooy leer xaqiqatul muhammadiya looloo tax alquran nekk allahu nuuru samaawaati wal ardi masala nuurihi ma ne gaa ñi noonu la de bi nga xam ne leer alquran na nag ah leer yi loolu moo tax bàyyi ne lam yasal mustadañ nuuru hoo leeram nga bi xay ni ilaahin ci watug yàlla pinti xaalin ci toxu fil kaw ni ci bindee fi baatanti xaalin ci gannaaw ak toxu bi nga xam ne leer alquran na nag bàyyi mii nga xam ne nag ndax tagab yonent mooy tagg baay baay kéemtaanam yi doyut ca ñu nettali la ci ndax baay dafa am ay kéemtaan yoo xam ne ci jëmmam ji la feeñ xam ci ay kéemtaan yoo xam ne ci nit ñim yar la feeñ xam ci ay kéemtaan yoo xam ne ci jamaano la feeñ am ci kiimaan yoo xam ne ci oto yi la feeñ am ci kiimaan yoo xam ne ci avion yi la feeñ am ci kiimaan yoo xam ne ci géej yi la feeñ lépp ci kiimaan yu bàyyi la cay lu tax مي أنا النفس والآفاق مهما رأيتها تراني فإني كل من هل ربي باي مني أنا من إبراهيم نفس ما يبكرني والآفاق تما يبكرني والآفاق تما يبكرني مهما رأيتها وقت وجدي في تراني من جيس ماني كل كي كل كي كم تاني يفعل كل نك كنام نك لا فيني تقول مي باي هم نجيم نبي بنو أي بني وخ إبرة إبرة إبرة إبرة أرام جود لبركة تيجي تيجي كم نكو mu dem yelwaani tay ba fen wala mu bàyyi ko tey ba njuufeen yelwaani ñàppa balla ba mu ñibi si ci yoon nak mu reer reer reer goo xam ten mu mosu koo réer fu nek duggu na fa ñax ci gaji bi do waaye xamatu fuñ bàyyi ko it xamatu fuñ jëm mu dal de tok bam yag mu binni ne eh ibrahim sama waaja yow ya wa ko ne yow ya yaay bakkan yi yow ya gox yi te lépp loo gis man yow la man day sa jaama ñu ni de torop ci xal bi na la gis legi am koo xam ne jël na xetal ba téye ko daa ni da doxal moom da doxal moom ba dagg yoon yi mu ne xee mooy yoon yi mooy fan mu ngay dem ba dem ba ci dëkk xamoon ne fii teeru ñu fenn la mu dem ba ba ca buntu néegam mu kunku mel ne ba ne mes gisatu ko kooku mooy Ibrahim Ibrahim moom lay defee li mu lay wan def la koy wan nga gis ko moom buur koo xam ne dafay wax waxu nee ni xam ne jëmm bés aadi lii nga xam ne moo fi nekk bu jëkk ca ca jëkk jëkk ya te ma mësa toog ci tant day jàng mu dal ne aadi kii jàngalkat la mu ne ko kooku day Babacar Thiam lañ koy tuddee benn téere la boo xam ne mu nga dëkk suum mu ne ko bii téere da dootul mbaali jëm waaye bu subaa rek nag ma ko indi ba fet nag ma ànd ak aadi ñu dem maa ngi téye askan su tuutee tuutee tuuti gannaaw dem na dinaa ko ne dinaa ko nettali bu fi nekkoon su ma ko nettalee mu jooy foo ko nettalee jooy na. am ko defee nag te sama yoroon te tu tuuti tuuti la nag day taar maa ngi fas benn simis alaaji boo xam ne ñu ngi ko ñëw ñëwi moroom yi mu gaw bu tam yi dem jag nag ca ca ca tellam nga xam ne noonu la tellee ñu ñëw ba buntu ne bàyyi foofu ngeen gisoon kanam toujours bu nekk nga xam ne ba dugg mu ngay tàng mu dal di jël xet ma yoroon dal di koy wéer ca maraaj ma ma ne ko lii nag mu ne ma doy naa la xet laa ilaaha illallaah I Ram, ne moom ngeen xam ñu ne doy naa doy naa la xeet ñu xam nga ndeysaan ba buntu nek ba bëcc buntu lal ba bay bàyyi da fekk mu ngi fofu fëfënu nag ak taaram bu reey ba ma dal di koy jox la ko ci jox ko yi dal di koy jox la ko ci mu ne mu ne xaat yi ne ko ñu mu ne ko ndax ki la ki moy kii doon wéy déglu leen déglu leen ma leen ko lox rek te dégloo Thank you. ايه بقى بارك اللي كنت بيقول بارك كده بقول bari hal yo fay raw nka be le ko ndax ndax xale bi ma doon dox mooy kii xaar yi ne ko xale baa ngi nga le may jox loxo joxaat ma loxo ne ma foo nekk mu ne ko jox ma fàtte jàll mu ne ma àndal ak moom te bul tàggoog moom te nit ci loxom lay matee ndax moom musta tàggoog man yooyu bul tàggoog moom ne ne xaar yi kii ku mën a tëdd yonent la te yéen yonent laa leen teddee yow sax xaadi laa la tuddee aji digle ji na nga taxaw moom na nga nekk xaritam lu mu bëgg defal ko te loo man jamono dana mos a ñëw ñu ne xaadi na dañ ko xaajo kamil laa leen di nettalee ne ma yow anta baay ma ne ko mu fi mu ne ma gëj na feen ma ne ko dafa wax ne daal dana ñëw xam mu jot waaye balaa ñëw dafay fekk yow tey is ko te buntu ba bërëb jot mën a ñëw mu ne waaye bu ñëwee fee nañ ko indi mi ini de ho indi peew yalla balaya sappu bu kamil mat mu dal di fàttaliku nag la ko jëkkëram waxoon dal di dem ci ami abdul mutalib ne ko dama ca kaaba nga ñaanal ma yàlla ndax li feeñu jigéen ñi feeñu na ma mu dal di dem ca kaaba ga mu nga naan yaa hayyu yaa qayyuum mu bi rahmatika astaqi yow yàlla nag ma fecc li may aminatu mat mu sedd mu ne lu ko xamal ne yonent bi juddu na dafa gis kaaba gi feccee ndeyjoor feccee càmmooy dal dee feccee kanam feccee kanam mu wali dal mustafa wa rabbul kaabati allah la taala ni min an jazil mutekin kooku mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune ne nañ borom neegi legi yalla lawal ma ci sërati xéefar yi ah. mu ma deg baat bu wax ca kaaba ga ne walidul mustafa al muhtar allati tahliku bi yadihi al qur'an abdul mutalib dal di daw nag fi fekk xale bu rafet rafet juddu na yonent ba muy ci juddoo ni do adama yi juddoo yonent ba mu juddu leer la andat do adama fi juddu dara la andat ba nga xamé na juddu na nak ba yonentu juddoo sallallahu alayhi wa sallam dafa dal di tiin kaw dal di rot sujjoot ni allah akbar kabiran والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعادلا لا إله إلا الله إني رسول الله اللهم ربي قال الله والله ينتهى ربا جدا صلى الله عليه وسلم ملوطا بارا جمالي نكو ومولده ربه سرف وقير ففي تأتي من أنجاء في جولي كما قال بوسي لكم ليلة المولد التي كان لديه سرور بيومه وازدحام نبات ختام واو بينكم نور شمس تباسقت إن شمس المصطفى تحتها تدعم الألالي كل ما يلتي على محمد صلى الله عليه وسلم آه بمجي دوني ري فكك بكو نيري فكي من ما ديك ما ديك كوري بخين بخين إلى محمد دنيا كله اسكاي اسكاي محمد أمنا هدينا لك mune ma dégg ko ne bihil ma dégg ko ne toog ba mu yàgg mu ne toxo bihil jinaan wal jinaan toxo bihil bihaar wal bihaar toxo bihil masariq al ardi wa maxaaribahaa walee nag moom géej gi walee nag moom jéeri walee nag moom ca kaw walee nag moom ci suuf walee nag moom penku walee nag moom xarfu mu ne ma toog ba mu yàgg ma dégg ko ne ah taxoo ka aadama ومعرفة سيسا وخلة إبراهيم وسجاهة نوح وسدة موسى وهب دانيال ووقار إلياس وسلطة داود وملك سليمان وحكمة يحيى وحكمة يحيى وسور هيسا أخمي زوجي أخلاق النبي دنيا mu ne jox leen ko bindal aadama wax ju foora ngoog nag jox leen ko bindal aadama ma ne wax ju foora ngoog bindal aadama hadis ba mu ne inna laa xalaqa aadama ala suratihi yàlla bind na aadama ci melam looloo tax mboolem yi fi yàlla giñ na ci waaye wala insaan nag du ngeen ko jàng ci alquran yàlla nee na wallu haa wa layli isaa saja yàlla nee na wa layli isaa yaxsa yàlla nee na wa samaay wa taariq yàlla nee na wa samaay saatil buruj yàlla nee na wal fajari wa layaal yàlla nee na wa samsi wa duhaaha yàlla nee na wa tiini wa saytooni yàlla giñ naa giñ sax ba ne wa ma xalaqa sakara wal unsaa waaye wala insaan nag du ngeen ko jàng moom lu tax bit ma dafa miirootu su ko jàngoon dafay wees ba dégg ma ne mbir ma dafa niru te bu ko jàngoon dafay rek ba ëpp moo xam leen ci ñetti wax waaw olof def na nit nit dafa xam lu niru lam niru kenn du ko wax ci penc pël ne ne dox lam niru kenn du ko wax nit séréer ne kiim kiim kaana lay firi te kaana mooy la nekk te keneen leen dootul nekkaat dégg ma ne mbir mila nii la nii la ko mënee nii la nii la ko mënee nii nii la ci démb la fee la ñu Ibrahima yóbbu bi nga xamee ne salkaana nag yonent a judd na sallallahu alayhi wa sallam ko defee nag mu ne jox leen ko xam yàlla ak sii sax xam yàlla nga wagati xam nañ ko ñu ko kat xam-xam nga xam fu mu nekkul kenn du fa seen ku rek ñuy wax leneen nag luñ mën a wax it dañ caa jotul waaye suñ ca jotoo jël. waaw loolu mooy xam yàlla. ma ne néeg ku ca dugg te taaluñ lamp ba nga tampon ba nga gaañu. Ah, waaw xam yàlla nag mooy leer gi nga xam ne mooy leeral baat yi ñii dañuy leeral saa yi. kon ku ko wéddi nga ko xam waaye boo ko xamee jël. waaw loolu mooy xam yàlla. xam yàlla moomu. dinaa leen ci waxal ay ay ay ay wax ay wax. xam yàlla. yàllaa ci njëkk a wax. jàngal alquran. yàlla nee na kallaa innahum an rabbihim yawma idin la mahjuubuun summa innahum la saaloo jahim nu fóore yi def du mën a firi loolu jooju ah mu ne ñi nga xam ne dañoo hiidu fii ba xamuñ yàlla su def tey ci dañuy hiidu duñ xam yàlla ëllëg yàlla yóbbu leen safara yàlla ne allah innahum fi miryatin min liqaa'i rabbihim allah innahu bi kulli shay'in muhit mu ne allah dëgg innahum naka ñoom mahjuub yi fi miryatin way sëkk lañ bi liqaayi rabbihim ci dajeeg seen borom te allah dëgg innaha naka yàlla muhiitun aje wër la ma bi kulli shay'in ci lépp lépp moo ma wër moo la wër moo wër taaba ji moo wër tal te te lépp lu wër daf koy nangu tax ca boppam loola ñàkk yàlla rek ale gaa ñi doon ko nga xamul bëgg nga ko wala nga xamul bëgg nga ko de naka noonu yàlla ne laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa xabiir li réeral boo yaa nga mu ne yàlla ne bët yi duñ ma jot ñu ne bët yi duñ ma jot ne suñ déggee arab ak boole a doon def ma ne nañ seet laat aaya ji yàlla wax def ne laa tudriku lamsaara bët yi duñ ma jot waaye wa huwa yudriku lu ko ca indi ah wa huwa yudriku lu ko ca indi ma ne su ko bët yi jotugit moom waa moom dana jot bët yi te su jotee bët yi xool <laughs> ma ne kon bu jotee bëri dana leen waxee xoolee leen defee leen. wallaahi kon nag nuñ def ak jooju aaya te yàlla ko wax. ak lan qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yulid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. cey loolu lu ko wàccee ma ne lu ko wàccee. te bari makka ñoo ñëw. ne yow Muhammad sa yàlla ji ñuy xooxee. ci përëm la bàyyeekoom. ci weñ bu ñuul la bàyyeekoo. am ci bant am ci goj. yonent ne cell jibril ne cëpp ne ko wax leen yàlla ne nga ne yàlla yàlla nee na la na nga ne waxal ne xul waxal huwa luy mbittee mbit allahu yàlla ahadun kenn la allahu yàlla sama du moom nga jubloot lam yolit jurut walam yulat jureeku ko walam yakun nekkut ku fa an lum dendat ku fa an nawle ku fa am àndandoo ahadun kenn la ma ne nuñ defal noonu ma ne nuñ defal noonu waaw lan la ñuy laaj naka noonu Yalla ne wasku rabbaka fi nafsika yalla yàlla ci sa bopp soo tuddee ta bopp rek tuddaale nga yàlla soo tuddee yalla yi tuddaale nga sa bopp ya, yonente yonente xal ko ci hadith ne man haraba nafsuhu haraba ko ko xam sa bopp kam yalla ko xam yalla yi xam sa bopp ah, mané ko ñu jëm ak jojo aya mané ne jëm ak jojo aya ci xare uut yonente ne oh. yonente ne yonente ne ci balle majje ñu tibbal ko jëmbaraay Moussa Baal mu jox ko Babacar Moussa Baal mu jox ko Omar Moussa Baal mu jox ko ci de Sabal mu xamne ñoo ñoo jot tasaru mu dal leen koy sanni ñoom ñepp ñu daw lamiñu alquran lamiñu hadratul kursi ne yalla ne yonente bi wa ma ramayta iz ta walakin la rama ba nga sanni sanni ho man yalla ma tanni ho te yonente sanni ho ak lu ci yalla do mané ko waru nañu nañoo seetlu ay itam wallahi الله يمجد بسرينك ولا ولا ولا تين وسائل ولا باتين وبكل شيء حليم kooku moom noonu lañ koy bàyyee de noonu lañ koy bàyyee de naka noonu yonent wax na ci xadinatul asra xadisa ngoo kitaab ak sunna too nekk yonent ne inna lillahi faraban ida qarahu li mahri li ali mahrifatihi إذا تريبو تريبو إذا تريبو تا إذا تريبو تريبو إذا تريبو هامو إذا هامو هاتو إذا هاتو تاتو إذا تاتو تالو إذا تالو طلبو إذا طلبو وجدو إذا وجدو قلتو إذا قتلو نسلو إذا نسلو وصلو إذا وصلوا فقدوا إذا فقدوا فنوا إذا فنوا بقوا لا فرق بيني وبينه صلى الله عليه وسلم دق دق دق يونس من يلا هم نان nan dencal la ko ña xam yàlla suñ naanee nan nga suñ sigraa jóg suñ jógee sàkku suñ sàkkoo xam suñ xamee jokku suñ suñ وبعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وهذه الكلمة هي القلوب وهي التي بمداومتها ومداومة سماعها يضمن الإنسان معرفة الله تبارك وتعالى والفناء فيه هذه المعرفة التي ربانا بها شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا عبد الذات ومظهر الصفات مولانا الشيخ إبراهيم الياس الذي